jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak ñun ci Yegle TV dellu si waat nañ ni ñu ko baaxoo ay bés yu nekk ci seen émission tolluwaayu réew mi tolluwaayu réew nag ñuy waxtaanee ci fànn yu wute ak ci fànn bu mu mën a doon waaye xam ngeen ne nag ni ñu koy waxee luy defu di waxute luy ay di njàmbat jamono ji njàmbat li yëpp moo di campagne bi nga xam ne ci la ñu dugg ñeel présidentielle yu ñaar fukki fan ak ñeent weeru février atum 2019 ba tax jamono ji gis nañu ne coow a ngi tàmbalee jóg gis nañu ay bakkan yu rot tuumalante tàmbalee dugg ci biir fas yéene ko waxtaanee fii leeg réewum Sénégal itam benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolee moo tax ñu daal di dalal tey ab kàngam boo xam ne dinañ waxtaan ak moom pàcc yu yaatu mu di koo xam ne itam xam-xamam màcc na bu baax a baax jëm ci wàllu boobee mu di Mbaye Samb doon membre ci conseil économique social ak environnemental nekk itam responsable parti APR muy parti bu nguur gi fii ci diwaanu Grand Yoff nekk fii itam délégué de quartier waaye jàppale ne itam 439 délégués de quartier yi nekk ci département bu Ndakaaru moom mooy seen porte parole moom la ñu fas yéene seqal waxtaan tey euh, Serigne Mbaye Samb maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alioune di la siyaare ah, di siyaare waa Sénégal yëpp di la nuyu dina wax asalaamaaleykum wa rahmatullah xëy na bi nga waxee da nga fàtte ne conseil municipal la ci mairie Grand Yoff ah wax dëgg yàlla di liggéey ci Grand Yoff ñu nekk ci campagne bi. wala ñoo dugg ci waxtaan wi nag maa ngi siyaare sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général képp murit ak sëriñ Cheikh Awa Balla sama bunt ci kër sëñ Fallou di leen ñaanal yàgg fi lool te wér te ñaanal réew mi jàmm ak salaam di ko ñaanal góor ak jigéen mag ak ndaw te ñaan campagne bi ñu nekk ñu dugg ci amin jërëjëf itam ci gàgganti boobee ni nga ko ko conseil municipal nga itam ci commune bu Grand Yoff alors euh, ayu campagne bi Mbaye Samb ci la ñuy waxtaan ñu gis ne jamono ji fitna baa ngi tàmbalee yow en tant que autorité euh, ban ban xalaat nga ci am nyan may njëkk ñaan candidat yi nga xam ni yàlla dogal na muy juróomi candidat na ñëpp ànd ak ñëpp toppandoo Macky Sall bi ñu commencé ba nga ne suñoo dégg mu woote lu dul jàmm di wax bilaam wax lim liggéey wax lim bëgg a def kon nag képp koo xam ne yaa ngi dagaan réew mi da nga war a wax sa bilan wax jàmm mais attaquer nit amul njariñ te kenn ku ne nag woo say militant woo leen si jàmm su ko defee defee naa daal yàlla mën nañoo defal sutura Dah gis eh, yaa ngi naan président Macky Sall jàmm la woote dëgg la yeneen leaders yi aussi loolu la ñuy wax même baat bi waiki ñuy dégg ñun ñëpp rawatina ñun ñi taskatu xibaar yi waaye ci xibaar yi ñu jot mooy kii nga xam ñot naa ñàkk bakkanam ca Tambacounda dañu ne ay ñooñu président Macky Sall faat ndax lu am la wala bokk lu ñuy def la rek pour tout mal ko kon information bi waa Pire faat waa bennoo la kooku bennoo la te li mooy leen waa piir ñoo dem Tamba créé fa seen obstacle ba rey fa ñaari nit kon kay loolu waa kër Macky Sall yi kay bu liñ leen di waa kër Macky Sall nee na ñoo songu ñu leen déedéet ndax ki fekk si moo la song doo mu fekk si mu. ah gis nañu tam Mbaye Samb avant ñuy dugg ci campagne bi Mame Mbaye Niang bi yore wàllum tourisme recruter ay maron bleu euh, maron du fa muy ñooñu nga xam ne ñoo yor ay xale yu góor yoo xam ne daal macha allah moom taxawaay am nañu ko ñu sensibiliser ci ñu bëri euh, ñooñu itam ne nañu jamono ji daanaka fitna rek la ñuy yee ndax gisoo ne aussi loolu waroon na mën a ñàkk fii léegi itam takk der yaa pour suñu indépendance ba élection bu leader yi kenn ku da nga am sécurité bu ak ñun puisque su meeting la def état Sénégal dana jël sécurité bu ñu taxaw ci meeting bi la. waaye su fekkee dangay dox karawaan di dem duñ la booleeg ay police mu lay garde danañ jël ñoo xam ne xeexloo wuñ leen xulooloo wuñ leen danañ ñu garde sécurité bi loolu nag yàgg na fi ab Abdou jëf amoon na ko Abdoulaye Wade amoon na ko Macky Sall am na ko ñii di wër kenn ko da am ku la garde loolu nekkul loo xam ne dangay ngay loo xam ne day indi histoire ci réew mi loolu moom ñu laal tuuti ci ñu nekk ci kuje gi muy ñeenti candidat yi des euh, ñoom ñëpp nee ñu président Macky Sall rabaj na carte gi ga noppi maanaam sàcc na élection yi ba pare. dañoo wóoluwul seen bopp rek ndax li wértoon mooy leen Sénégal gi kenn mënu fee sàcc élection yow su fekkee dem nga woote ji bu 6 heures jotee bañ bañ tëj bureau de vote yi boo déparé bala ngaa egg sa kër da nga dégg xam école bi nga wootee xam résultat bi na mu demee mais kooku. xanaa kon dañuy dañuy ñeengu carte sa affaire bi wala nu muy dem sàcc moom mënut am ci élection yi ku wóolu sa bopp daal waxal say militants ñu dem wateel la campagne al wax wax waa réew mi lu leen doy buñ gisee loo doy wateel la. li tax ñu ne dañuy day sàcc élection yi mooy gis nañu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. ne woon nañu juróomi candidat ñooy dem si jongante bi maanaam ñeent ak président Macky Sall te effectivement noonu la deme yàlla xëy na dafa am ñu kii sax mais ñi am ñaar ñoo xam ne dañ leen disqualifié. mais nag man mii su ma sañoon su may dem su ma nee Macky Sall mën naa sax ne Macky Sall 60 pour cent lay am wala 70 pour cent la am sama yéene laay wax waaw sama bëgg-bëgg la Mamadou Abdoulaye Dione lii la ma waxoon bëgg-bëgg boppam la mais waxu ko pour ne lii mooy am xëy na nag tombé waral na ay gaaf waaye nag su fekkoon ne cour constitution li ñu jëloon sept personnes yi kon xam nga du nekk juróom. alors Abdoulaye Wade ñëw na semaine bii ñu passé yëkkati ay kàddu ñu bëri ci askan wi ñaawlu ko ndax li mu wax mooy. Euh, bu bëssu woté ba joté na ñëpp dem ci urne yi mu di mbañ gatch yi tal kayit yi nga xam mom la askan wi wara woté yow ngay kilifa ci réew mi ban ban ban euh, tontu wala ban xalaat nga mëna am ci kàddu yi. Sénégalais yi dañu wara comprendre góor ci naka dara ñoru ko réew mi ñoru ko Sénégal ñoru ko. gi jité fukki at ak ñaar nga nek dara ñoru ko. bam ba bam fi jité tam lan moko ko dem ba mujj gi mu bëgg ñu imposé doom ji ñu làng tay ji su fekkone dafa dik digel ñu lo xamna ne njëriñu réew mi la waye élection du am ci réew mi fii sama doom bokk ci te amoon lu mot vingt personnes yo xamna ne ñëpp ay candidat leen ñu disqualifier leen léegi 25 cinq pourtant amna ñuy bay amna nañuy ndey seen bay seen ndey ñëpp a ngi toog muñ mais pourquoi pas moom muntu muñ wala Karim Wade def ñu gën non non gënuñu gënuñu xamul lu wara def comme que na démocratie ak jamm lay woote dafa dik wara organiser sénégalais yi teg ci yoon wo xam dañ danañ dem ci jamm wote que le maire gagne ëllëg si biir doomam dana delsi bu yàlla dogalee mu war a doon président de la république dana ko doon mais su ko bëggee imposé Sénégal yi dañ koy jéppi jéppi doom ji te day yàqal doomam man su doon man la daal damay woote jàmm ndax moom moo xam ne ni wax dëgg yàlla jaamu yàlla ak ñaan koo gisoor su a sukk ci kanam ne ko ñaan ñaanal ma man suma ma sañoon kàddum te su jàmm yéenewu ma ko nu jàmm ndax suñu kilifa la suñu baay la suñu maam la vraiment am nañ ci moom beaucoup respect te it wax dëgg yàlla kenn ku ne boo sañoon am ab Ablaye Wade ci sam réew waaye na góorgóorlu ba xool li muy wax di ko teg ci noppi Sénégalais yi pour mu am way wut mel ni Nelson Mandela way mais est-ce que aussi gisew ne foofu itam euh, Mbaye Samb li ñu def doomam moo ko métti parce que ñu bëri dañu jàpp ne dañu jalgati àqam ak yelleefam comme ni ñu ko defee ci Khalifa Ababacar Sall ndax du moom kese lañ doon topp ci wàllum enrichissement illicite maanaam koppar gu lewul waaw def doomam waru koo naqare ndax li tax waru koo naqare euh, Alioune Badara yàlla mooy kii dogal te ku laalut kenn du la woo man kenn wowuma yoon la amat affaire lu muy kaas na ko réglé diggam mag yoon te bañ koo réglé diggante ak ñun en tant que personne Macky Sall laalu ci dara ndax kenn musta gis Macky Sall dem tribunal di lijjanti nit wala muy téléphoné yoon nag dafa am loi yoo xam ne fi la ko Macky Sall fekk Senghor bàyyi ko fi Abdou Diouf bàyyi ko fi Abdoulaye Wade ko kon nag képp koo xam ne loi impliqué na la ba woo ci boppam dañ lay bàyyi moom su paree nag ba def la ci Macky Sall mënoon def na ko bi nga xamee tëj nañ ko léegi foofa neexu ko ay bokkam ñaan nañ ko dimbale mu baal ko ci lam moom lam moomu nag mënu koo baale am na droit nag def ko gracier pour personne mais lim ameel réew mi ak lam seq ma ki mënu koo baale. ma leen di fàttali a ci émission tolluwaay réew mi ci Yegle TV. suñu nekk membre ci conseil économique social et environnemental nekk itam kon délégué de quartier fii ci diwaanu Grand Yoff nekk fii itam li nga conseil municipal waaye it jàpp ne kon mooy porte parole 439 délégué de quartier yi nekk département bu Ndakaaru. ñuy waxtaane tolluwaayu réew mi waaye jamono ji tolluwaay gi ci campagne bi la ñuy waxtaane ak gi tàmbale am te dara jotagut ñu bëri itam taxaw ne président Macky Sall labaj la nar ci fànn boobe alors mbay fi ñuy daal di dugg mooy gis nañu ne jamono ji daanaka gox goxaat yu bëri ci tunduk Sénégal gi nga xam ne candidat mosu faa dem président gëj na fa ba mu falo jamono ji yëpp foofu mu ngi fay circuler ndax xalaat nga ne aussi fi ñu toll warante nañ ji am président boo xam ne rek euh, ruq-ruqaatu Sénégal yi balaa mu koy xam rek campagne jot. d'accord ma ne président gëj na moom faloo. am na dëkk yu mu gëj de. waaw mais bi mu faloo léegi bépp région ci Sénégal président dem na fa bépp gox lu mu tuuti tuuti su fa demul yónnee na fa ndaw mais nag yàlla rek mën a nekk fépp xam nga am important ñu xool bilan président Macky Sall. xool lim liggéey ci réew mi ba xam dajale na loolu nga may wax waaye pour mu dem fépp munta nekk te positif na ni ñu koy waxee parce que gis nañu liñ muy inauguré yëpp amul dara lu ci pare waaw dama lay wax leen Alioune Badara c'est la première fois ñu am président de la république boo xam ne yor na réew mi juróom-ñaari at yoo xam ne dara yokku te lépp luy njariñu sénégal yi yokk na ko nga xam ne njariñ la lépp luy dund mu yemale ko lii mu wàññi ko juróom-ñaari at ceeb wàcc yokkut diwlin yokkut suukar yokkut essence yokkut gaz yokkut xoola gaz bi ni mu doon yokkee Ablaye Wade mi ngi ko fekkoon mille deux cent yóbbu ko boor kër quatre mille et quelque boobu na ñun dikk wàññi ko ba def ko deux mille neuf cent vraiment su fekkee dañuy xool nga xool bu fekkee ne da nga dugg ci Sénégal su fekkee dañ fa fekkoon exemple pas chiffre source su fekkee dañ fa fekkoon deux cent kilomètres de route ñun yóbbu nañ ko léegi mille deux cent kilomètres de route ci sept ans nga xam ne li ñu fi def dañ amee indépendance ba léegi defuñ ko li président Macky Sall liggéey ba ñu amee indépendance ne Senghor ne Abdou Diouf ne Abdoulaye Wade suñ totalee lañ liggéey ñun liñ liggéey ko nga dem ci forage yi pas chiffre tout dama la jox rek exemple su fekkee dañ fa fekkoon téeméeri forage léegi ñu ngi ci ñeenti téeméeri forage kon foofu évolué na bu baax nga dem ci lycée su fekkee dañ fa fekkoon trente lycée ñu ci deux cent lycée wax dëgg yàlla lan nga bëggoon lan nga bëggoon bu fekkee mbay mi dañoo fekkoon ñu fay téeméeri bari par an léegi ñu ngi bay junniy barigo par an. te loolu yëpp ci nguuru président Macky Sall la bu ma la ah, déggee. mais wedd gis bokk ci yow génne rek nga dugg dëkk bi foo jaar da nga gis liggéeyam bëgg la génn Dakar léegi nga xool autoroute Ila Touba bi boo ci xasee dugg dem nga ba Bakel dem nga ba maatam dem nga ba Kaolack fu la neex boo xasee génn Dakar rek fu la neex ubbeeku na xoolal li ñu def ci réew mi xoolal li président de la république def ci réew mi tey bu neexoon président de la République mën naa a bañ a campagne ndax bépp sénégalais boo xam ne ni Sénégal intéressé na la aar foo génnee rek bala ngaa dox deux cent mètres gis liggéeyam mais kii dafay def formalité rek xay na nag ñi jàkkaarloot dañu gis suñu bilan gis suñu liggéey moo tax ñu tiit na sàcc nañ parce que. du yéen a ragal ñooñu. déedéet déedéet yéen a ragal ñi ne ci opposition bi. parce que jamono ji yéen a ngi leen di. yow ba ñu commencé ba léegi est-ce que dégg gun nga benn kàddu bu ñaaw bu jóge si ñun jëm ci ñoom. ñoom non même bu dul même bu dul kàddu bu ñaaw mais bàyyee ngeen xel bu baax a baax itam ñi nekk ci opposition bi rawatina Idrissa Seck ak Ousmane Sonko mi nga xam ne bi mu jógeeg léegi yàggul. parce ma yor lañ bëgg te man li ma yor maa leen ko gën bëgg bëgguma leen ko jox soo koy xëccoog man kay danaa ko téye di la bàyyi xel du ma la may benn porof ndaw lu boo ko jëlee moo tax bañ ñu ñu fexe ba caq bi lu tilim du ko natawaay ba mu set képp koo gis bëgg ko bëgg giñ ko bëgg nag moo tax ñu moom ñoo amer dañu sonal rek man nag am fula bu toy ni li ma yor man danaa ko ba ku ko bëgg si maa la ko gën a bëgg te man la sénégalais yi wóolu bu dénk ma ko mee ndax am ngeen yaakaar tey ne euh, sénégalais yi li ngeen di séntu ci ñoom di ngeen ko am ngoonu ñaar fukkee fan ak ñeent ci weeru février li tax ma wax ko mooy ñu bëri ci askan wi rawatina ñu ne ci monde rural bi maanaam kaw gi mere nañ président Macky Sall de déedéet déedéet kenn merewut président de te boobu moom bëgguma langage sax bëgg nga di ko wax ñu koy dégg ci ab ci rajo yeeg télé yi. puisque li xam nga ñun askan bi rek ñu toogal amul benn amul benn sénégalais boo xam ne nii kontaanuloo ci Macky Sall ndax li vertour kenn ku ne gis nga li président liggéeyal ba ci corps amul benn corps de métier wala fenn fooy dugg te gisuloo fa liggéeyu président de la république ba pare nga duggaat ci mbay boo duggee ci mbay mi li vertour mooy leen su fekkee béykat yi béykat boo mbayam lu mu bëri bëri mun ton a bëri bay lu weesu une tonne léegi béykat bu gën a ndaw day bay ay cinq tonnes dix tonnes ah vraiment fi toll ni buñ daa am musuñu am lu mat sept cent nangam yu ci bari bërigo léegi ñu am un million de tonnes yu tegal kon donc xam nga ne réew mi mi ngi avancé béykat yaa ngi avancé kenn ku ne yaa ngi ci yegg sa bopp ba pare mu jàllat bi ko nag nga xool mu dugg ci àll beeg bourse familiale bi mu def cette famille boo xam ne nii wóor na la ne boo masaa bay ba pare sa mbay lépp du mat mille francs doo mën a régler say doom mu daal lay indi la benn condition pour bëgg xale yëpp jàng borom kër benn bu ne mën la dugalal sa doom école weer wu de dinaa da la dinañ jox ñaar fukki junni pour nga régler pour njàngu xale yi mais wax dëgg yàlla Macky Sall li muy defar réew mi su fekkoon ne xam nga li ngay wax ni euh, bañuñu ko parce que ñun li ñuy wax bu fekkente ne taskatu xibaar lañ dañuy dox ngir joxe xabaar waaye xabaar ba nga xam ne mooy jëriñ askan bi euh, li nga wax yëpp mbay Samb bañuñu ko mais problème bi mooy euh, banqaas yi nga xam ne président Macky Sall taxawal na ko fenn fu ci nekk dafa am ku mu ko dénk waaye dafa mel ni dénkin boobu nañu ko war doxalee doxale wuñu ko li ko waral mooy semi gis nañu ko muy couverture maladie universelle kenn du ne amul lañ ca war a jëriñoo ci eh, te ba léegi mun a guñu cee gis ay loolu mooy leen na ñun ñi nga xam ne ay surgaam lañ képp ñu ngi ko si jàppale ndax yow mii dikk nga fii sa manifestation boo xam ne minimum deux cent personnes jël naa leen kenn ku ne ma dagal ko carnet mi yëpp quatre mille cinq cent di neuf cent mille sans propre moyen famille bi koñ bi yëpp ku feebar dem faju soo amee ordonnance dikk ñu dem faj la wax dëgg yàlla bourse familiale yi lu ma téeméeri ni dugal naa leen ci quartier bi xamewu ma pël bi naar bi séeréer bi xamewu ma APR bi xamewu PS bu ma amee liste rek damay soit ñi ko mérito ñu def ko mais ñooñu wax ne Macky Sall duñ mais jéego boobu nga def tey yow jël ko ci sa propre moyen def ko ndax xalaatoo ne tey ki ki jiite exemple tey couverture maladie universelle aussi bu defoon loolu keneen def loolu ndax askan wi duñu gën a mën a gis seen ñi ngi koy def ndax l'ouverture mooy leen am na benn manifestation boo xam ne Cheikh Baaxu moo ko organisé fii ci école bi keroog na trois cent personnes trois cent personnes jëlal leen ñoom ñëpp ñu jël leen en charge mboolem responsable yi nga xam ne xam naa leen kenn ku ne yaa ngi dem sa quartier di ko def te yaakaar naa ne ñi ci àll ñi nit ñi rek ñooy wër di wax ñi nga xam ne dañoo bëgg jël sañu caq bi waaye population bi moom wax dëgg yàlla lépp lu ñu liggéey gis nañ ci seen bopp d'accord alors nous euh, gis que la campagne de euh, direction yu de dañuy tam campagne bi loolu euh, askan wi su nous dañu koy nous administration bi nga xam de nous dañu ko fay soxla kilifa nous ñu ngi ci campagne côté aussi nous bu doy la côté administration administration ma ngay dox na mu war a doxee soo seetloo directeur général bu mooy gën ndax dafa nekk koo xam ne politicien la di dem di liggéey pour politique mais teewul kuréel yi mu war a signé yëpp chaque onze heures et demi am na benn ku ko jël dikk yót ko fu mu nekk mu signé kuréel dara tardewut ci liggéey bi mais nag su fekkente ne ñun ni ñuy doxalee réew mi population bi moo ñu ko jox buy heure laaj réew mi jotee dañuy génn dem laaj leen réew mi ndax pour wan leen ne ñun liggéey nañ lii su fekkee li bu ñu ko joxaate rek ngeen xam ne li ñu leen liggéeyal baax na kon nag léegi directeur général bu génn wala un ministre bu génn dem ci base politique am di politique teewul service baa ngay dox bu ñu amee courrier bu mu war a jot onze heures et demi ñu jël ko andil ko mu signé bu ñu amee beneen cinq mu signé léegi bu guddi jotee bu nit ñi wàcce nga xam ne deful dara moom mi ngi fanaan ci dossier di xool mu war a def balaa bët set mu def lépp dag naan bu fekkee ne dugg nañ ci campagne électorale képp ku ñu ngi dañoo war a wax massa massa coono ndax dañuy boole ñaari liggéey liggéeyu bureau ba ak liggéey population bi ak bëgg-bëgg askan bi ak di xool li nga xam ne manqué na ak li ñuy corriger lépp bu ñu xëyee leeral ko nit ñi kon nag ñun ñu ngi leen di déglu kenn pour ngeen laaj ci bilan bi lan moo ci tardé wala lan la Sénégal bëggoonte bëggoon te ñu leen ko. ngi lànq sama lañ ci sax ndax ci laa naroon ñëw instant bi yéen a ngi wax bilan bilan bilan bilan waaye li askan bi soxla itam te gisuñu ko bëri na. laataa ñu fay ñëw li ma la bëgg a laaj mooy lan moo tax système mu Sénégal yëpp dañ koo jël politiser ko. li waral laaj bi mooy bi ñuy doon dugg ci campagne bi ñu coupé ndox bi ay fan askan wi mënuñoo am waaw te bu ñu ko rëddee ba fa muy yem wàllum politique la. ndax système bu Sénégal yëpp bu ñu ko jëlee politisé ko tam dina doon. rek matale te matale wuñ lim séddale daa jox ñii lu bëri jox ñii lu tuuti kon foofu mën naa laa njëkk question maa ngi lay xamal ne affaire machine affaire tiwo kooku du loolu Macky Sall bu ñu defee installé ndax ba ñuy jël réew mi ndox woon na fi lool te fi ne wóor na ne programme bi man fii ma dëkk dëkk naa fi lu mot fukki at ak juróom chaque jour damay sangoo ndox laay sewati sang léegi heure boo ubbee change léegi nag paan boo xam ne ni tiwo bu toj kooku président mënu ci lenn ba mu tojee wax nañ Sénégalais yi ne leen tiwo bi dafa toj danañ ko liggéey ci quarante huit heures wala soixante douze heures waaw waaw déglu ma bañ ko defaree fenn bi mu yembee robinet yëpp a ngi demaat te bi nga xamee loolu am na dañu ne danañ jël minimum lu mat trois cent camions yoo xam ne dañuy jël ndox di ko servi nit ñi defe naa ñun fas nañ yéen na chaque jour foo ñu toll ñu ngi ci intérêt sénégal yi ak seen bëgg-bëgg ak intérêt réew mi ak di sàmm alal réew mi ak kaaraange réew mi loolu mooy li ñu ñor moo tax fi ne suñu campagne amuñu droit tudd nit amuñu jot tudd nit xam nga li ñu am li ñu liggéey macha allah dafa bëri kon moom la ñuy war nit ñi di leen ko wax. parce que Alioune Badara boo nekkee Ndakaaru lañ liggéey Touba xamoo ko lañ liggéey Bakel xamoo ko tey soo ma wooyee man mi ci xam dara mën naa ne nañ fi Bakel def nañ fi li nga mënoon naan ma mbay réew mi daa manqué lii ma naan la lii la mais mënoo maa wax dara loo xam ne manqué na ci ba ñu falee léegi te it wóor na la ne ba ñuy jot réew mi amul benn atelier tailleur booy dem wala atelier bépp buy liggéey ci courant fekk loo fa groupe léegi nag ñun ñu dem ba yàlla suturaal ñu ñu dem ba nga xamne rew ñu wër sax ñi leen may courant dem ba am saxar bo xamne day daw sans saxar courant lay dawee. mais ndax saxar bobu nga wax muy train express régional bi xalaato mu indil Sénégal jafe-jafe lu tax ma wax ko moy milliards ñu ci duggal yépp euh, ndax Sénégal ya nga wax sank ne dina dañuy may courant mais ndax moté nañu courant gu doy go xamne saxar bobu eus bu yembé fi ak benn wër ba tambalé daw dina servir courant. sahar bi ba mën servir fi askan. mo bëgg nga déglu ma bu baax ndax nak bu économique la. dama wàcc réew bu ñuy wax Amérique ak cent quatre-vingts dollars cent quatre-vingts dollars yooyu ci laa jël di ko manipuler ba mu nekk chiffre affaire un milliard et quelque lu ma am ca laa ko am kon xam naa affaire économique saxaar gi milliards yi ngeen ci wax dama bëgg ngeen teg ko ci suuf xam nga ñun si milliards yi lan moo dama la koy leeral ba pare ñun dañoo am suuf su yaatu am foo xam ne mën nañ faa jaarale aw yoon ñu ne nañ wuti partenaire boo xam ne mooy indi alalam defaral ñu saxaar gi su pare saxaar gi daw di fay boppam xam nga ne président de Macky Sall demul France ne lebal leen ma nangami milliards déedéet daa dem ne leen dama am saxaar goo xam ne courant laa bëgg muy daw jam ñaar lay jóge ex am naa suuf am naa yoon moom jaar kooku moo ko mën a defaral am entreprise boo xam ne nee na mën na koo defar mu ne ko ñëwal defar koo ko jël alalam defar ba pare muy sagu Sénégal léegi nag bu commencé daw Sénégalais yee ciy dugg mais dañuy fay paas ba ñuy fay nag moom la ñuy dajale di fay saxaar gi saxaar gi su xasee dëkk mu wóor la ne titre la ci Sénégal Afrique kenn amu ko fi wala ñu ko fi am ñu néew la bokk nañ ci réew yi ko njëkk am te saxaar gi buñ ko xasee installé dootu génn Sénégal léegi ñu naan milliards yi ci Macky Sall def ñiy wax ñëpp dañoo xam nañ sax dañoo bëgg a yàq waaye duwul na milliards yi Macky dafa dem ca banque ba jël ay milliards wala mu jël milliards yi Sénégal def ci te nag ba àdduna sosoo ba léegi fii ba Amérique lépp am na fa képp kuy ubbi sa entreprise da ngay dem ci banque bi mu lebal la nga installé sa entreprise di liggéey di fay saxaar gi itam joxuñ ñu xaalis teewuñu xaalis dañoo dikk liggéey seen saxaar bu paree saxaar gi daw dafay fay boppam kon nag loolu intérêt sénégalais la. kon intérêt sénégalais la jamono ji lan mooy intérêt sénégalais yi yeneen yoo xam ne xam ngeen ne waroon ngeen ko def ci sept yi te yàlla def na yembagu. déet xam nga li am solo mooy leen danga naan ma. sénégalais yi nangam soxla woon nañ ci côté defu leen ko lu tax waaye ñun lépp loo xam ne intérêt sénégalais yi ñoom dund gi buggoon nañ mu gën a wàññeeku ndax xam nañu ne Sénégal fi daanaka téeméer boo jël juróom-ñaan juróom-ñaar fukk ya seen loxo jotul ginnaaw waaw déglu ma bi ñuy yéeg liñ njëkk a def ceeb lañ njëkk a wàññi fekkoon nañ ci kilo ceeb téeméer ak nangam waaw d'accord waaye nag loo daa jënd téeméer ak nangam dem ba koy jënd juróom fukk ak juróom benn fukk defe naa ne am nañ te léeg-léeg daan dem ba ceeb bi manque ñu di ko wër léegi na ñu dimbale béykat yi jàppale leen ba ceeb bi ñuy lekk parce que mën nañ koo jënde Sénégal ba ñu ngi koy bayee Sénégal wax dëgg yàlla gàcce nga la président de la république xam nga nit ki da ngay xool parcours am xool fi mu jaar nga xam ni muy yore réew mi xam ni mu dëkk ci réew mi koo xam ne Sénégal nga doom màgge fi yaroo fi jàng fi sa dara génn réew mi sa lépp di sénégalais wax dëgg yàlla boo ñu jiitee war nga moo ñoo teg ci yoon woo xam ne xam nañ ko gis nga ñii di wax ñëpp parcours bi Macky Sall jàll kenn jaalu ko ci jaaru ko ci itam li mu fi def amul benn doomu sénégalais boo xam ne ni ci moment yii bu defaloon na ko def parce que yàllaa ko fi teg yàllaa ko xalal yoon yàlla na bu commencé na ñëpp ne alhamdulilahi rabbil na fa seen mu egg boo ko bëggee kale da ngay sonn rek waaye moom dana dem. déedéet ndax leen am na da ngay seetlu président de la république Ablaye Wade bañ ko fële premier ministre bu ne essayé ko kenn mënut a teg benn xeer. Idriss Seck nekk na fa ba jóge fee premier père sax tëkku keroog bi ñu indee Macky Sall mbooleem lu Ablaye Wade liggéey Macky ko commencé mbooleem lu Ablaye Wade pare Macky ko intégré continué kon xam nga ne ñii bokk la ñoom mission keroog bi Macky Sall toogee avant muy am un mois lan njëkk teg Malick Sy otul Malick Sy boobu la procès commencé ba dugg ci àll bi dugg fépp mais vraiment kii nan nga koy yore di ko yemale koo xam ne xamuloo ko bu sa toj fenn. yaay toog fii naan Idrissa Seck tojul fenn. Idrissa Seck di nitu état xam état état da nga non. xam état li ma la wax xam nga li am solo mooy xam nu ñuy liggéey état ak nuñ koy defaree moo gën toog fii naan xam naa kee mbubb mu weex la sol dama la wax ne la am na année sangam dama wàcc ci réew sangam ak cent quatre-vingts dollars am na intellectuel yu bëri boo leen joxoon deux cent millions ren ba déwén ñu perte dootuñu am luñ lekk yow nga yor benn cent quatre-vingts dollars war cee fay hôtel war cee añ jënd ci lu mat fukki ne di ko jaay benn juróom ba am ci plus un milliard et quelque ku ko dénk réew ku xam am xam-xam bi am man-man bi bu ñu la dénk réew Macky Sall dafa pratiquer dafa jàng ba pare pratiquer te mu nekk ingénieur plein boo xam ne nii lépp lu teye téye bu ko xoolee képp war naa mën a xalaat yoon wi muy jaar mu jël nag ay techniciens yu mu wóolu ñu ko doy ñoom àndal ñu bokk liggéey ci réew mi kenn ku ne fa mu la teg rek bu xoolee képp nga xam li mu bëgg bokk la ki nga xam ne day làmbatu ndax tey jii réew mi fi ñu toll buñ ko jëlee jox Idrissa Seck danañ amaat 300 yoo xam ne dañuy nekk stand by waaw parce que li wértoon mooy leen bu dikkee balaa comprendre wala balaa xam fi muy teg tànkam il faut ñett at yi mat su ñetti at mu liggéey benn at commencé waat politique bi jéem a carte deuxième mandat Sénégal yi dofuñu te kenn du perte lii ñu commencé il faut ñu joxaat Macky Sall mu liggéey cinq ans eggale li mu war a def eggale projet tegg nag saxaar gi ci raay bu jub kocc nga xam ne keneen ku mën a dikk su bëggee Sénégal su continuer raay bi Sénégal toujours ci kanam. Sénégal ci kanam la jëm mooy li su suñu bëgg-bëgg ñun ñëpp mbokk yi ma leen di fàttali ni yéen ci seen émission tolluwaayu réew mi ci Yegle TV ñuy waxtaane nag tolluwaay gi ci wàllum euh, campagne bi rawatina présidentielle yu 24 février 2019 suñu gan tey di Mbaye Samb doon membre ci conseil économique social ak environnemental Nek itam délégué de quartier fi ci diwanu Grand yop bi nga xamné conseil municipal la fi way itam jàpp né kon mom moy porte-parole 439 délégué de quartier nek ci département bu dakarou alors ñu gis né jamono ji waxu len ko waye deug deug deug deug deug ragal ngeen né 24 février dina xawa ñagas lool liko tax moy ñepp dem nañu botu ji ci ginnaw Idrissa Seck bi ngeen xalaat né bëss bu fi togué du fi gawa joggé jóge sëriñ bi sétlu li nga may laaj ñun ragaluñ dara ci 24 février dañ ci am fierté ak xel mu dal Idriss Seck kat moo biir bu boot ci ginnaaw wax ma ko. Khalifa Ababacar Sall mu ngi fu mu toj. boo Gueye Dany mu ngi ci ginnaaw Bougane Gueye Dany lu moom bu daj. ah boo demee Abdou Mbaye bi mu demee élection munta am sax téeméeri yu ko fal benn ah man damaa xamut ñi ngi bu jëm ci ginnaaw Idriss Seck kan Idriss Seck bi mu demee élection barki dem bu 7 pour cent la damay laaj ñi ci ginnaaw Idriss Seck. man daal ragal naa ne jëm ca làmb jey bàkk jóge faa gën di bàkku te ñun nag dañoo demoon ci làmb ji daan te dañuy daan daanaat ndax li wértoor mooy lenn du ma bëre yow daan la te mun la furli il faut furli daan nañ dañuy daanaat laajal beneen question mais lii buñ mais dañuy daan daanaat incha allah bu soobee yàlla deuxième tour sax ñun lañ ko suñ programme xam nga lu ñuy def programme bi ñuy def nu ñuy liggéey te itam li la wóor ne soo xoolee suñu xel dal na am nañ fierté am nañ fierté ci suñu président de la république moom it xelam dal na ndax wóor na ko ne liggéey na pro loo xam ne nii neex na sénégal yi ba fi ne nii su amee programme ak yow sax ci mois de mars naan la na xaar mois de mars ñu def nangam kon kooku rafet na njort ndax li wértoon mooy leen su fekkee ne man dama toog di waxtaan ak yow nga liggéeyloo ma liggéey la liggéey bi rafet saa sooy waat ku liggéey doo déglu ki liggéey ndax xamul man man mii ngay woo di ma laaj ay xalaat loo bëgg def loo bëgg a def fii damaa bëgg ngay xool réew mi li réew mi soxla te defaguñ ko nga laaj ma ba xam ña nga ca wala ña ngay waaj waaye gis nga ñi waxtaan ci perte de temps la ndax fi mu li ñu ñor émission bu ñu dem rek programme bu ñu wax nañ wax programme mu Macky Sall yoonu benn Bokk Yaakaar yoonu yokkute ma majorité présidentielle li ñu liggéey li ñu war a def fi ñu jëm loolu mooy li ñu intéressé mais candidat be non non loolu taxu ñoo jóg ko ñu daal di ñëw ci beneen laaj bi nga bëgg mooy commune bu Grand Yoff gis nañu ne électorat la fi yeneen kàngam ñu ngi fi ngeen bokk benn parti bi kenn ku ci nekk ak jéego ba muy mënal euh, tey lu ñu mën a am yaakaar tey bu ñu ci élection yi ci li ngeen jotal liggéey fi wala ci yow li nga jotal liggéey ci man ci li ma teewe dafa dogal yàlla dafa dogal commune bi ma dëkk yàlla suturaal na ma ba ñëpp jox ma bi campagne bi ñun wa responsable APR yépp dañu bolo tok waxtan mbolam ñi nga xam ñom ñoom ci liste ba mu dekkal nga dooro jiddu ñu waxtan ñun ñëpp kenn ku ne am lo bëggon mëna kenn ku ne na bàyyi li nga bëgg dal na légui nañ leen jël Cheikh baxum def ko coordinateur ñëpp and ci biñ paré ñu wo alliés yi nga xam ne ñoo àndoon ak président de Benno Bokk yaakar ñëpp ñu biñ dikkee ñu bokk waxtan ñëpp d'accord ci ñu def benn say andé liggéey di campagne campagne bu rafet képp koo xam ne nii politique jàppale Macky Sall ak bëgg naa moo la taxoon a jóg ànd nañ ñun ñëpp benn say lañ ñu ngi àndee liggéey liggéey bu rafet amu fi xuloo amu fi coow amu fi te bu njëkk dañ ñëwoon grand yoo fa gën jaaxal président pour ànduñu léegi ñëpp ànd nañ ñëpp ngi liggéey ndax xam nañ ne dëgg rek mooy am muy mujj te lii wértoor yàlla moo santaane booloo bañ naa ko biñ dikkee man dañu jël comité de sas jox ma ko ma nekk président nga xam ne lu lëj maa ko war a lijjanti bi nga xamee loolu def na boole nañ ñun politiciens ñi nga àndee liggéey dem naa seeti bonne volonté yi am na ci benn nit boo xam ne ni nit ku baax la koo xam ne lu ne mi ngi koy def ci Grand Yoff ñoo ngi koy wax Mamadou Sylla ACP conseil économique social ACP au conseil Grand Yoff gii la juddoo xaar yàlla nday maag bàyyam nekk fi mu jàng fi moo ko mos a génn réew mi te bokk na cadre yi nga xam ne ñoo important ci réew mi te it direction bu ñu ko mos a jox rek dese na ko bi dikkee mi ngi jàppale population Grand Yoff yëpp mi ngi organisé tous les ASC mu ngi leen def jàkk yi ma nga fa jumaa yi ma nga fa léeg-léeg mu woo fii docteur yi indi leen ci benn école dajale Sénégal yi yëpp ñu dem faju ku feebar faju doo fay benn dërëm chemin bi lim ci def minimum def na deux mille et quelques yoo xam ne def na ko nit ñu mel noonu ñëpp ñu di jàppale président de la république yàlla dogal ji jubóog ñoom te kuñ ci woo nga ñëw fi mu toll maa ngi di waxee su ma jógee fii bureau laa jëm pour wax ko li nga xam ne fi la Grand Yoff tollagu nangam ndax liggéey waaye lu Grand Yoff soxla su ma demoon ne ko population Grand Yoff quartier sangam dañoo soxla nangam mu ne mbay lu ko war a def su ma ne ko délégué de quartier dañoo soxla nanga mu ne mbay ko war a def te it maa ngi lay xamal ne cër bi ñu Grand jox bi ñu ubbee campagne bi man seul maay ki njëkk a président kii Amadou Ba andi ko fii mu recevoir délégué de quartier bàjjani gox yi imam yi waxtaan ñoom lan moo ma ko may cër bu ma jëflante ñoom ba nga xam ne nekk naa nit koo xam ne macha allah ku mu jàkkaarloog man rus ma rus googu ñu ma rus na danaa fas yéene sàmm ko comme ni président sàmme réew mi danaa fas yéene Grand Yoff gi dara du fi yàqu ay liggéeykat a ngi fi ñu ko bëgg a ngi fi xuloo amu fi xeex amu fi te incha allah dama lay xam ne élection yi lépp dana biskile ci APR. kon mën nañu am yaakaar ne ngoonu 24 février Grand Yoff moom APR coalition Benno Bokk Yaakaar sax la ñuy wax moo fiy teg tan xoolal mën nañu soo ko waxee dafa mel dafa lu ñëw leer rek naan ah, ñun am nañ yaakaar ci ni lii mooy am incha allah. xam nga loolu nag mën nañu da ngeen. waaw ñun ci naatable lañ nekk parce que ñun dañuy laaj question. mais ñun naatable wuñ. ñun ñu ko liggéey gëm nañ li ñu liggéey danañ ñu teg résultat bi ndax mënu maa togg ceebu yan yekk muy maafe li ma togg rek mooy li ma togg rek la ñu yekk d' accord alors euh, jamono ji euh, yeneen yeneen communes yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ndakaaru parce que itam boo xoolee Sénégal du Grand Yoff rek capital bi du Grand Yoff rek euh, am na yeneen gox ni nga ko waxee sànq Amadou Ba gis nañu ko ak première dame foofu ca parcelle ak yeneen ak yeneen ndax aussi collaboration bi warul gën seen diggante au fait ci jamono joo xam ne itam toogaat ngeen bëgg ndax yéen li ngeen jiw Grand Yoff jiw ngeen ko ba li ngeen fi bëgg a am ci kàttanu yàlla ngeen am ko. mais balaa mu doon neex tey Grand Yoff am ko parcelle am ko feneen am ko ndax coalition boobu aussi yéen a koy liggéey seen. émission bi yàlla na nekk loo xam ne day tas ba Sénégal yëpp dégg ko. inchaallah bu boobaa dinañ mën a jël ci ñun waa Grand Yoff référence ndax buñ jëlee ci maanaam responsable politicien yi fi ne jël ci délégué de quartier yi bàjjeni goxi imaam yi jël ci nit ñi nga xam ne nag yàllaa leen baaxe muy nit ñu baax classé Modou Sylla gi may wax li ñuy def ci réew mi su fekkee képp ku mel ni moom yaa ngi koy def sa quartier ba booba lépp dana fasanti ko te buñ fasanti ko def naa danañ dimbale ki nekk ci kaw di liggéey ndax koo xam ne ni dañooy liggéey dëkk ci gox juddoo fa yaroo fa màgge fa xàmmee woo pël ba xàmmee woo naar ba kër goo dugg boo ne pap si ne ah ku ko wax dëgg defal nañu li bu tabaxare dikkee mu nga jëndi nag bu gàmmu dikkee mu nga jëndi nag chrétien bu ñu xewlee mu jox lépp day jaar ci sama loxo bi maa ko ñu wax succès coordonnateur te man li ma bëgg mooy leen képp kuy liggéey réew mi di jàppale président de la république su ma toogee danaa ko wax du wax li ma nit ki defal li nit ki defal réew mi laa wax kon na am na ñeneen ñu ko baax na ndax kat ku santul nit ñi doo ku santul nit ñi sant yàlla ndax yàlla lu mu la mën a jox da koy jaaral ci nit nit ko jox la nga ne ko jërëjëf daal dem na yàlla alhamdulilahi rabbil alamin li ma doon ñaan de di jox na ma ko yàlla na yàlla faj aajom faj suñu aajo kon nag ma nga xam ne maam bépp nit boo xam ne bëgg nga intérêt réew mi bëgg intérêt Grand ba pare di jàppale doomu Grand Yoff maa ngi lay ñaanal yàlla sa soxla yaa ko xam yàlla faj ko te nag jëmm ju maa ngi koy cité li tax ma koy cité daf ma yëm ndax man su ma amee million tey dama koy jéem a denc génn ci tuuti joxe moom soo ma ko gisee ma am million xàmmewut kii Grand am la dëkk xàmmewut kii Murid la xàmmewut kii Tijaan la ku mu gis tëral la kon nag li wér mooy leen jëf ju baax daal wax a ko fay. aloor euh, ci fànn boobu ñu daal di ñëw tey yéen a gis li nekkoon jafe-jafe askan wi ci say wax sànq wax nga ko saafara ngeen ko bu doon téeméer mun ngeen ne saafara ngeen juróom-ñett fukk yi kon ñaar fukk des na ci ngir mu mot téeméer. tey yàlla bu leen joxoon ndam euh, vingt 24 février lan nga xalaat yow tey en tant que autorité waaye it en tant que waajur lan nga jàpp ne rek war ngeen cee gën a mën a taxaw muy loo xam ne rek askan wi ba léegi ñu ngi koy xaar wala am na lu fa des. gën a gën a accélérer émergence bi ba bu ñu defaatee cinq ans bu Sénégal melu ni Paris jege ko loolu mooy li ñu ñor ndax léegi su fekkee ne bi ñu jël réew mi fanweeri dëkk amoon courant léegi juróom-ñaar fukk dëkk ak juróom am na courant mu des ñaar fukk ak juróom. bu dëkk yëpp amee courant nga xam ne foo yor sa portable fa soxlaa ndox mu sedd fa soxlaa climatiseur installé sa kër defe naa foofu am nañ fa émergent léegi boo ñu demee ba nga xam ne ne jigéen ñi kenn dootu yor cour fu dëkk tuuti tuuti boo ubbee robinet na ndox ñëw yaakaar naa booba egg nañ fa ñëpp egg ah bépp dëkk boo xam ne dafa sori woon ñu defal ko tali bu mun am tali ñu defal ko raara wax dëgg yàlla loolu intérêt sénégalais la te da ngay xool nag yow ba ñu amee indépendance ba na nga ni kenn ku ne jaar fi lëcc lëcc mënuñoo fexe ba Casamance geeg Sénégal yomb yow léegi bu léegi nii boo départoon léegi fanaan Ziguinchor doo xalaat bag bi doo xalaat lenn kan mun la ko indi yàllaa nga ko indi ci suñu nguur da xool ba ñu jëlee Sénégal ba léegi Senghor nekk na fi di wut pétrole mënu koo gis di wut gaz mënu koo gis di wut lu nu mënu koo gis Ablaye Abdou Diouf ñëw wut ba sonn Ablaye Wade ñëw wut ba sonn ñun la ñu ko yàlla wan xoolal jëm ñaajo kenn ku ne da ko daa romb xamuñ sax ku romb da ngay def ne ay janj rek fa nekk ak ngeer ko léegi la fa nekk ñoom gisuñu woon lii kon nag dama bëgg ngeen xam ne yàlla moo ñu ubbil bët bi ñuy xoole fii fattagu ko da ngeen bàyyi ñuy xool ñoom dañ bàyyi ñun ay journaliste la ñun askan wi lañ fi toogal waaw ngeen leeral li ñu kon wax leen ne leen mi ngi liggéey xam nga ñun li ñuy wax tout le temps euh, du ñu du ñu jéng du ne du ñu far ci yéen du far ci askan wi dañuy xool fi dëgg bi nekk ñu wax ko parce que li nga laal noonu sànq muy pont wu Sénégambie bi bi ñu koy inauguré ñun ñu jóg def ci la ñu ci war a def askan wi dañu ko rafetlu man mii di wax ak yow 2004 la tàmbalee dem Casamance jafe-jafe bi ñu doon am xam nañu ko danga doon dem fanaan ci bag bi da nga fa doon gis ñu am une semaine ñu jàll. Mm. léegi da ngay ñëw traversé mu yomb. donc réew it buy dox ak ku fa mën a nekk loo ko bañ bañit it nangul ko ne mu ngi doxal. waaye dafa am poñ yoo xam ne bu ñu fa eggee fi lekk askan wi la ñu toogal il faut ñu laaj yéen ñi nga xam ne yéen fa nekk yéen a liggéey ngeen mun ñu wax ne lii la askan ñu di déggal seen bopp. ci fànn boobu dafa am boo xam ne ñu bëri ci askan wi dañ ma ko yóbbante ma bëgg la koo wax bëgg it amaale ci sa xalaat muy wàllum lu yaas gi président Macky Sall bi mu jëlee dogal ngir ñu wàññi ko lu ñëpp rafetlu la ndax it métti woon na lool waaye toll nañ foo xam ne ñu bëri dañu ne amul suivi maanaam topp gi ci war amut te askan ni sonn nañ loxo jotul ginnaaw bu président mënoon taxawaat ci luyaas bi bu faloo dimbale leen ci parce que bailleurs yi ñu ngi def lu leen neex dafa mbiri sax dafa gën a piir d'accord naa daana tontu foofu dafa am lu mën a njëkk wax diw bañ ne ko yaag diw ku mën daf ne ma duma nga gis danga ma wax ak opposition bi ak naan suura la 24 buñ dumaa ngeen xam ne ñoo leen man duñ seen morom dafa am na loo xam ne nii président de la république la ko war def na ko dikk na fekk loyaas bi man sama kër gi am na fi ku fi luye woon koo xam ne mu ngi doon fay cent cinquante mille keroog bi ñu ko wàññee ba léegi cent dix mille franc la may fay te waxuma ko dara te tey la gën a placé ci kër gi am na nit ñoo xam ne ay xol yu rafet lañ yor ay jullit lañ bañ ko defee dañoo nangu jàppale président ci liggéey bi am naa benn copain boo xam ne nii bi mu totalee ay location huit cent mille manqué nañ ci par mois te mi ngi continuer mais am na ñoo xam ne dañoo daal di indi yeneen jikko ne borom kër gi dina leen damaa soxla kër gi dama koy defaraat kooku génn ñu defaraat peinture rek yokkaat seen location bi président xamee loolu ndax xaaral naa def li gën a gàtt bu soobee yàlla danaa jéem a aménager suuf si nga xam ne moo wër ndakaaru yëpp dagg koy parcelle bépp néew ji doole boo dikkee jox la kër def fi tawfeex def eh, boole ko liggéey ak agence immobilier ne leen ku bëgg suuf te nga xam ne da ngay liggéey kenn du la jaay suuf si ñëw ñu jox la suuf nga tabax nga xam ne soo paree tabax bi rek ngay jaay tey su fekkee terrain da ko waroon na jënd vingt million wala quinze millions ñu may la terrain nga exploité ca def ca quinze million bu kër gi paree quinze millions ngay fay xam nga loolu Alioune da day mën a am kër soo waa am kër man mi ma am kër kon nag li wér mooy. programme Macky Sall daal dafa neex a wax moo tax fi mu toll nii loo ma dama lay laaj lépp loo xam ne senegal yi bëgg na ko te yóbbante la ko soo ma laajee ma ne lii lañ ci def lii lañ ci toll fii lañ jëm. luyaas boobee ma la wax mooy li ëpp ci li nga xam ne askan wi moom la ñu ma doon yóbbanti ndax it boo xoolee daanaka loolu moo gën a nekk jafe-jafe. waaye dama la tontu waaw laaj la tontu la boo xam ne ci kàttanu yàlla ñoom ñëpp dinañu ko gisandoo Sénégal ba bitim réew. Mm. alors euh, daanaka Mbaye Samb li des si waxtu bi bëreetul suma technicien mu ngi may signalé. ci campagne nag la ñu nekk faaw ñu xam seen programme lan la li ngeen teg yëpp fii ba ba campagne bi di tëj le 22 février incha allah. waaw suñu programme li cëpp mooy jàmm woote jàmm nit ñi daal expliqué nañ leen suñu programme wax nañ leen fuñ jëlee réew mi wax nañ leen fuñ ko wax nañ leen fuñ ko bëgg a jëmee programme baa ngi nii wax nañ leen te programme li nga xam ne war nañ ko def ci réew mi. ñun dong nga fi am programme bu leer boo xam ne teg ngeen ci seen bët jël leen na nit ñi jëli seen i carte téye ko bu suuru wote baa nag kenn ku ne dem di dikk tëdd seen kër tey déglu la 24 incha allah 20 heures ñëpp ne wiwu Macky Sall gannaaw suba ñu xëy dem liggéeyi lii mooy programme bi nga xam ne moom laay conseil sénégalais yi di ko digal ndaw ñi di ko digal mag ñi. tey nag maa ngi leen di xamal ne programme Macky Sall dañ koy wax mais demul bay xaaj. ndax fi ne ne financement yi xale yu góor yi seen yi nekk si dëkk bi même ñiy jàng kenn ku ne nee nañ la demal nga wuti say projet ñëw même léegi dañu wax ne université dépendre tuñ ne da ngay jàng ba egg ci kaw boo xasee am sa bac defal formation heure boo paree ñu di ko ubbil entreprise boo xam ne da ci mën a liggéey yor ci sa mbokk yor ci sa famille ba nga xam ne nii sax ñi jàng ba nga xam ne am nañ maîtrise am licence ak lépp mën nga leen a embauché leen fay kon nag ragal naa ne ñun programme bu ko Sénégal dégloo population bi déglu ko ah est-ce que souvent fofu tam laaj la benen bu may bu ma nar ndax li nga wax nonou est-ce que souvent fofu tam du nek problème yene bi ak kàddu yi dañu koy dégg mais souvent day xawa a compliqué parce que amna ay jeunes yu bëri yo xam amna ñu nañu seen diplôme ñi amna ñu ay projet mais dañuy feug bunt yi souvent mu dëgër côté bobu tam gisoo ndax war ngeen ci gëna sensibiliser askan wi manam gën leen yé ah parce que it lu bax boo def dama japp né lu bax boo def pour gëna japp askan wi Euh, surtout même médias yi il faut ngeen collaborer ak ñoom publicité yi di daw lépp di daw ñu mën a xam ne ah mbay Samb mii kat am na lu mu xewle tey Grand boo fa demee lii ak lii mën nga fa am financement est-ce que boobu aussi gisoo ne wax dëgg yàlla da ngeen fay xaw a kii tuuti. man dama kontaan ndax li tax ma kontaan Alioune Badara daa mel ni sax. ndax demoon nañ ba yegg nga fàtt li mel ni dañu fàtt xale yi ñun ñii liggéey te fàtt fàttewuñu xale yi nga xam ne ñëpp bokk kii bi moo tax ma loo bëgg a laaj soo bëggut a laaj ma lay xam nga tey jii su fekkee ne yow da nga daa jël sa téeméeri junni di làkk-làkk di lijjanti nooy def pour di ci yëkkati ba mën cee takk jabar am ci kër président ne la defal sa formation loo def formation rek parel di kër ma financé la nga jàpp dem liggéey loolu amu fi woon te wóor na la teg nga ci sa bët xalé yaangi ngi évoluer bu baax fettul nii mbeukatuñ dugatuñ fenn amuñ fenn soxla luñ soxla ci biir réew mi lañ ko def té lu leer nañ la xaaliss bi mu ngi circuler milliards yi génne nañ ko ndax alal di alal di sénégalais la amna ño ñoo xam ne dañ koo dencoon wala jël ci dugal ci seen xaalis yóbbu service Macky Sall da dik nek africain bolé ko so xolé jëmi président de la République Macky Sall semaine bu ne benn yoon ngay gis musul ko sem foko fek yere olof lay sol bañ na ba dañuy xotti ci basee ak populine bi jox ko téer ñu ñawal ñu dañu fay ndax seen entreprise jog kon kooku mii ngi yëkkati Sénégalais yi même kiy jaay ndox bu di kenn damay jaay ndox am na projet même bu dee projet 5000 ñu financé ko 5000 kon nag yaakaar naa ne ah yomb daal boo koy ji bu lawee ba daj lépp yomb xam nga garab bi ñuy wax yomb soo ko jiyee ba mu law bu mu meññee lépp yomb. ndax fooy cere jeex na kon nag ñun nag fi ne nii suñu cere dafa dajale amul kenn ku ci gisul sa bopp. loo ci bëgg laaj rek ak lu sa xel nekk rek man maîtriser naa ko parce que dama nekk économique c'est parce que opérateur économique laa de xam ni ñuy dugalee dërëm ak nu ñu koy yokkee te xam ne njariñal doomu aadama mi ngi ci koom ku amulam koom bokkoo ku amulam koom sa xel dalul kon toujours maa ngi xalaat man tey jii su ma amee kayit bi nan laay def ba kayit bi nekk fukki kayit su ma ko xamee ma enregistré ko am na nit ñoo xam ne président de la République seen expérience lañ boof lañ fonk ndax. li wérta mooy leen nag kenn du tam sa bopp te kañ sa bopp maa ngi ne sénégalais la xëy na daw ma ci bànga école bi waaye intellectuel bu ma àndal bu ñu wàccee ñaari aéroport moo doon sa gidd kon nag la ma ko may mooy ba mu mettee dama teel a génn dem wuti jàng lu bëri xam adduna bi am expérience expérience boobu nag laa dikk di ko tas ci réew expérience boobu mooy li jafe ci jamono ji ñu toll ci Sénégal rawatina sax ndaw ñi muy ñun jeunesse bi Euh, ban yoon nga gis. yoon bi ma gis mooy yoon bi président de la république ubbi ne xale yi nañ jàng ku am forma formation bu mu mën a doon moo xam tabax moo xam jaay caaf moo xam mécanicien moo xam ñaw moo xam peinture lépp loo xam ne am nga formation bi boo dikkee danañ la financer suñ la suñ la financer dans trois mois nga am expérience bi. ndax da lay wóor na yow heure boo demee Dakar dikk demaat dikk Dakar dikk rek am nga expérience xam yoon wi ngay jaar ak yoon wi gën a gaaw moo tax. jërëjëf Mbaye Samb xam naa ne waxtu bi jeex na tàkk ma bàyyi la rek bu dee am nga kàddu boo bëgg a sànni laata ñuy. tëj jotaay li may tàggatoo daal di sant sénégalais yi sant nit ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen xew ak jàmm ji nga xam nañ ndax man li ma gën a yéem Sénégal fi mu toll nii nit ku yàlla teral ngay teralaate soo ko defee rek dama naan kenn gënu tagguma kenn du ma géwalu kenn kenn mayuma dara mais Grand Yoff bii dama fee gis jëmm joo xam ne wóor na yàlla billaahi li muy def damay toog di yàgg maa ngi ma ne ko maa ngi ñaan bu ma yàlla naree jox milliard yar na ko jox ndax nga may ma ci sama wàll ndax man suma ma amoon milliard tey dama koy denc di ko lekk maa ngi sama njaboot mais moom tey bu amoon milliard xamee ko dërëm boo fa demoon léegi bu ne ko kii ah, alimbado nangam nangam moo soxla mu la am poosam bu ca fukki ji nekkee mu jox la muy kan si la doomu Coumba Fall dëkk gar ya, xar yalla gi bokkuma ak moom dara dara dara jëfam la gis di ko wax te nak ku santu nit ñi do sant yalla te itam jëf bokay def yalla sax dafa bëgg su lo defalee nga ne ko rabbil alamin mu sant la waxuma lu mo defal lim defal nit ñi la wax yalla nako yalla yàlla jàppale te Grand yef gep ganaaru kenn nenu nak nag ma nek fuma gis lu bax wax ku def na ko wax boo gisee parti bi la wax ne mbay sam dafa ñeme dëgg mënu ma nattable dëgg fu fekk mo wax ko ak ko mëna ku may far far ma ci ku mere mere ma ci wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi defal ñu sutura maa ngi ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke li mu bëgg a liggéey sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla yeggale maa ngi ñaanal Sexaaw Balla sama bund ci kër sëñ yàlla na yàlla guddalu fanam barke bi nekkoon ci bàyyam wàcc moom teñ bokk ko maa ngi ñaanal sama njaboot yëpp yal nañu yàlla boole jàmm ak xéewal te defal ñu jàmm def ñu élection yu sedd guy président de la république gañewaat ko delluwaat ci liggéey bi eggale yéenam ci Sénégal yal yàlla def jàmm salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf mbay Samb sant nañu ko gërëm ko gërëm bi te wax itam Pape Sylla mi mu wax ndax itam ni ñu koy waxee Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar nit ki itam buy def di def ci askanam. laaj na itam ñu koy wax bu baax a baax ndax ñeneen ñi melul ni moom mën a fexe ba roy ci moom kon am na solo bu baax a baax lu ñu lay nangul la séddoog yow itam ngërëm bi nga xam ne yëkkati ko ko jëmale ko ci moom mbokk yi émission tolluwaay réew mi la woon ñu amoon suñu gan di Mbaye Samb doon membre ci conseil économique social ak environnemental nekk itam délégué de quartier fii ci diwaanu Grand Yoff nekk fi itam conseil municipal waaye jàpp leen ne ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent muy 439 délégué de quartier yi nekk ci département bu Ndakaaru moom moo yore seen kàddu moom la seqaloon waxtaan tey doon waxtaanee tolluwaayu campagne bi ak jafe-jafe yu ndaw yu ñu ci nemmeeku rawatina itam tolluwaay réew mi ci fànn yu waa yaatu dégg ngeen waxtaan bi di ngeen ko mën a am ci seen télévision Yegle TV ci TNT bi canal quarante ak itam ci suñu page Facebook ak fi nga xam ne moo di YouTube. maa ngi sant ñëpp gërëm bu baax am di Moustapha Niang mi nekkoon ci caméra bi ak réalisation bi ak montage bi yëpp di leen jox dig dajaay bés bii di ñëw itam yàlla miy borom jàmm ci jamono te kum defal jàmm nga am jàmm yàlla nañu yàlla boole defal jàmm jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu bi.